bis mu njëkk ba amal nañ ko ànd ceeg suñu mbokk sëriñ xaadim Bousso Bachir mu amal fi waxtaan bu am solo ajjuma ba ca toppit ñu ànd ak suñu mbokk sëriñ xaadim Bousso sëriñ xaadim Bousso Guédé imam moom it mu amal fi waxtaan woo xam ne wu am solo la bi weesu it ñu ànd ak suñu mbokk sëriñ Mbacke ñan moom it mu jaar fi nga xam ne mbokkam yooyu jaar nañ fi tey nag incha allah. ñu fas yéene koo tëjal ak waxtaan boo xam ne wu am solo la ci mbokk moo xam ne euh, ku man maanaam li nga xam ne moom la ñuy sàkku ci moom la incha allah danañ ci dellu si léegi xam naa bala ñoo guddal dañuy jox euh, sëriñ Masamba ngir mu indi kàddu yoo xam ne kàddu yi ubbi lay doon ak kàddu yi ragal gan yi kon sëriñ bismillah محمد وعلى اله وصحبه وخديمه وسلم تسليما سين سام ني لاي دالو نيو بو باخا باخ دي زيار كليف ييغا خامني ني في تيو ا تارا جيتاي بو باخا باخ دي ملني ني بين تامبلي جيتاي بليغي فين غيستو كريستيان سوني كاناو تي لول ياكار ناني دانا دارا سوني خيل بو باخا باخ دانا تاخ ني جامبو ني ا فين جيم ملني ني جادو ndax lool rek lañuy jëri da day kilifa mooy su la joxee ab liggéey nekk ci sawet wet euh, saa yoo bëggee jàdd mu dal lay tan bi ngir nga mën a jaaral fa nga war a jaar kon mel na ni kon liggéey bi ñu ko tàmbalee ba léegi euh, ñoom ñi ngi teewe jataay yi lépp loo xam ne tamit ay orientation la yoo xam ne nii buñ ko defee mbir mi gën a jàpp euh, ñu ngi koy def kon jant gi ñoom lañ koy tàmbalee di leen xamal ne tamit seeni ndaw lañ euh, seeni yoxo lañ yoo xam ne nii dañuy def rek nag ci seen ron ndigal ndax dafay mel ne sëñ Cerno buñ ko tuddee ak sëñ Amaat ak mboolem sëñ Cheikh ñun toogal fi mag ñi jataay bi nga xam ne nii moom lañ ciy toog mel na ne ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax barab bi ak ni nga xam ne ni noonu lañ ko war a toog kon ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa mu gën leen a dëgëral gën leen a leeral yoon wi ba li nga xam ne nii moo yell ci barab bii muy lu mel nii ñu mën di ko dundal fu ñu toll su ko defee tamit dafay mel ne rek ñu ngi sant yàlla bu baax subhanahu wa ndax weeru màgg bi ni nga xam ne nii moom lañu euh, xaw a góorgóorloo ba jéem koo dundal euh, mel na ne euh, ñu bare baree bari rafetlu woon nañ te loo rek moo fi yell comme ni ko waxee woon keroog rek euh, laj na bi nga xam ne nii mooy lañu thaqaafiya ci jàkk ji bi nga xam ne nii rek mooy seen jubu jubuwaay la ca ëpp solo mooy fexe ba lépp loo xam ne nii ñu ngi koy soxla ci barab bu ñuy tudd di tudd diine ñu fexe ba fii mu am fi ba kenn du ko jëggaani loolu nag yaakaar naa ne bépp munaasab munaasab bu ñëw rek danañ ci feeñal yéene ba ñépp xam ne jëmuwaay bi mooy loolu kon ñu ngi gën a tàllal loxo mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi rawatina waa tam ñu xam ne li ñuy liggéey nii ñoom lañ koy defal ñu ngi sant bu baax a baax ñu gën cee jàpp gën cee dugal seen loxo euh, lépp loo xam ne tamit gis nañ ne buñ ko defee mu gën a baax nañ xam ne ñu ngi leen di déglu euh, di sant tamit bu baax a baax mboolem euh, usar yi nga xam ne nii moom lañ ko tudd tëddee ren ndax du tuddee sax waaye mbir moo xam ne ni yaa moom ñu delloo la ndax li ñu rek mooy barab bu nekk la fay ñuul am na ñoo xam ne nii yàlla ci ñoom la ko jaarale kon nag léeg-léeg di leen bàyyiwaat xel di delluwaat suñu xel ci ñoom di fàttaliku liggéey bu am solo bi nga xam ne ni moom lañ amal ngir mën a lawal li nga xam ne ni mooy njëmbati mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jaar ba def liñ fi def kon mag ñooñu tamit nga xam ne nii euh, yàlla ci seen loxo la jaar ngir barab bu sell bi ñu aar ko ba dëkk suñuy loxo kon ñoom it wax dëgg yàlla fi toll war nañ ne bàyyi xel bu baax a baax di dal ci ñoom kon looloo taxoon ñu ne euh, ku nekk ci ñoom danañ la jagal benn bis boo xam ne ni bu ñëwee lañ ci gën a jublu mooy ñu fexe ba xam lenn ci yow ci say jikko ngir gone yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ci bari dañuy dégg rek say saw tur xamuñ ci yow lu bari kon loolu dana nekk loo xam ne ni laytaale yoo xam ne dana am solo bu baax a baax Euh, jox ko suñu waaju euh, Baye Sane Njaañ bu sox ñuy sant bu baax a baax ak njabootam ci taxawaay bi nga xam ne nii moom lañ ci taxaw ba bis ba wax dëgg yàlla jag lool kon ñu ngi leen di sant ci seen teewaay ak seen jàpp ak seen dugal loxo bu baax a baax a baax yàlla bi nga xam ne tamit moo tax ñu koy def ak bay Sane Njaañ kon lépp loo xam ne nii euh, yonente bi sa salaatu salaam digge woon na ko ci koo xam ne nii dafa dogal ku woor kon tuyaaba jooju yëpp yàlla na ko yàlla dotti sotti ko fa mu nekk mu nekk ay leer yoo xam ne nii euh, leer yi dem ci moom la su ko defee tamit mu mel ne ñaareelu bis ba euh, ñu tuddee woon ko jabootu si Ndiaye et sëñ Abdou Salaam Bousso euh, ci kilifteeku sëñ Abo wax dëgg yàlla ñoom tamit teew nañ ci bis bi jàpp nañ ci kon ñu ngi leen di sant di ñaan si Abdou Salaam tamit yàlla na ko yàlla dotti ay xëyewal ak i leer fa mu nekk ñetteel jataay bi tamit. niñ ko xamee ñu jagle woon ko euh, suñu bàyyi la ñuy wax muy sëriñ Abdou bu Bousso ndax mat na ko sëkk moom it wax dëgg yàlla ci njiital sëñ bu so mu mel ne njaboot gi teewaay ba rafet na lool waaye seen jëfit ca bis ba rëy na lool ñu ngi leen sant mi ngi leen sant di leen gërëm tey nag jotaay bi ñu ngi ko tuddee koo xam ne tamit dañu wax ne suñu bàyyi lañu lañ koy wax bu dee mbokk mën nañoo wax ne mag lay doon waaye ci kilifteef ak ñu féete woon ak ni ni mu woon waa koñ bi muy sëriñ Modou Moulay Bousso moom lañ jegleel bisu tey bii moom it wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax euh, xam naa xalifaam sax moom la la xam ne yàlla xam doy na muy sëriñ Fallou Bousso waaye rek ak nu mën a demee daal ñu ngi koy sant bu baax wax dëgg yàlla ñoom it euh, ay rakam jàpp nañ ci bu baax ba bis bi lépp jeg nañ jeg nañ ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan tamit sëñ Moulay Bousso mi nga xam ne nii. liggéey bu sell bi doon liggéey ci euh, gox bi ba mérito ñu tuddee ko bés bu mel nii te buñ ko koo wax buñ ko ko askanalee mel na ne dafa delluwaat rek lépp ci bàyyi si euh, bàyyi bàyyi mulaay ndax moom tamit xam ngeen liggéey bu am solo bi mu wax waaye si mulaay moom koñ bi niñ ko fi ràññee ca mbaax ga ca oyof ga ak ca mën a jëflanteeg nit ak doomu aadama ak dugal ko sa bopp ba mu ñeme la ba mu ba lu bëree bëree bëri mel na ne. léeg-léeg nga dégg kuy nett loo xam ne ni ci moom la ko jëlee loolu nag xam naa ne yaatu bu mu yaatu woon dënn ak oyof bu oyofoon ak nu mu dallale woon ay rakkam uuf leen kon looloo tax tamit ñu xam ne yayoo jataay bu mel ni jataay bu diine ñu delloo ko ko kon ñu ngi ko ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala fa mu nekk yàlla ko yàlla dotti ay xéewal ak i leer yoo xam ne dana tukkee ci bis bi mu xam ne lii moom ñu ko jox loolu moo moo tax ñu jox ko ko kon ñu ngi koy ñaan baax baax yàlla jox ko euh, jox ko ay xéewal su ko defee kon tamit sëñ bi ñu ngi sant bu baax yenn mbokk yoo xam ne nii donte euh, ren moom dañ ko yebale woon rek yooyu waaye am na si ñoo xam ne nii jàpp nañ ci bis bi euh, ku mel ne sëriñ fay mm, jàpp na ci ci ci jataay yi nga xam ne moom la def kon dana rafet rek ñu leen xamal leen ne seen ab liggéey agsi na ñu ngi ko tegoon seen loxo tamit àggale nañ ko Serigne Mor Talla la tamit. wax dëgg yàlla bokk na ci ñi nga xam ne ni dugal nañ seen loxo ci jataay yi waaye suñu uh, ay mbokk muy famille Serigne Dame Fall ci njiital Abda Fall ñoom wax dëgg yàlla uh, tabal nañ seen loxo mu mel ne tamit professeur Lamine Fall ca famille ba la bokk waaye moom it wëlbati ko war naa ci ci ci ci ci ci mbiru boppam dugalaat loxoom ci jataay yi waaye ñu ngi sant bu baax a baax Mamour Ndiaye moom. Uh, Euh, maam Mor Ndiaye mi nga xam ne ni wax dëgg yàlla moom ci koñ bi la dëkk koo xam ne ni ku bëggal lu baax la moom it dugal na loxoom ci jataay yi waaye ak sëñ Cheikh Gaawanka ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di sant di leen seedeel sëñ bi di leen ne ñi nga xam ne ni ñoom lañ joxoon seen ab liggéey ak seen ci commission bi euh, tegere ci loxo kon yàlla mi nga xam ne ni tamit moo taxoon ñu koy def yàlla na ko yàlla nangu yàlla leen ko yàlla defal ay xéwal yoo xam ne nii dana dooteeku seen kaw kon daal xëy na ngir bañ guddal rek euh, buñ kii bi def sëñ Thierno xam naa ne dina joxe kàddoo mu tëj jotaay bi waaye ñun rek ci mbooleem commission bi nga xam ne moo fi nekk muy commission culturelle bi nekk ci jumaa ji di toppatoo lii sant nañ bu baax a baax gërëm nañ bu baax a baax xam nañ ne jotaay yi laaj na ay moyens laaj na yu bëree bëri yoo xam ne nii su fekkante ne bi yembul loolu du mën a nosu waaye ñu ngi sant bu baax ñëpp di sant tamit monsieur le maire wax dëgg yàlla ci teewaayam ay jotaay yu bëri yoo xam ne nii ñëw na fi teew ñun ànd ak ñun jataay bi loolu tamit euh, wax dëgg yàlla dafay teral jataay bi ndax euh, autorité yooyu tamit ci lañ bokk kon daal sant nañ cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye am na fu euh, sant boole tamit nga xam ne ñoo bokk ci commission bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di tuuti sant bu baax mel na ay tout tànk lañ waaye ñun ñi nga xam ne ñoo ko jiite woon sax mel na ne ñoom bañ ko yoree gën koy doxal lañ ci man ñun mañu ko woon kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla tamit yàlla na yàlla gën a dëgëral yàlla na yàlla gën a àggal foo xam dana toll seen jor kon ngir bañ a guddal laa sëñ Sam ñu ngi yemal ko kàddu di sant yàlla subhanahu di ñaan yàlla may ñu teewaat ay jotaay jotaay déwén ak i lu ko lu ko raw ci ak suñ tubaab yàlla mën na ko yàlla na yàlla def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh joxel gi nga xamne mom moom la jullit yépp wara am ci yeren bi sallallahu alayhi wasallam mu doon lo xamne man nañ ne faratal ndax doomu adam bi wala julit bi lii yitteem ci kaw suuf moy am ngëm ndax ngëm gogu moy li nga xamne mo koy mën muccel te ngëm gogu yeren bi sallallahu alayhi wasallam neena nee na du mën am lu ne joxel gogu dafa am ci mom mo taxoon serigne bi doon wax naan wa salli daw wa salli daw ban ala man hubbu furida nga xamne yeren bi sallallahu alayhi wasallam joxel gi nga xamne mom lañ ko wara a bëgg dafa doon lo xamne waaye nag ñuy indi li nga xam ne loolu sëriñ bi jëmmale ndax euh, ku ne xam na ne sëriñ bi tolloon na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam koo xam ne fu sori la nga xam ne suñ borom moo ko wom ma jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne léppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam la daraan génnut yonent bi ba tax na mu amoon ci moom cofeel koo xam ne euh, du mën a néewaa nañu gis ko feneen waaye mënee su koo gis feneen ndax du ko jëmbal ci ay euh, anam yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne incha allah bu ñëw ba ci biir waxtaan wi dana leer ñu ciy àndal nag suñu mbokk moo xam ne yaakaar naa du ñuy ku ñuy présenté ndax euh, képp koo xam ne yaa ngi yittewoo li nga xam ne mooy xam-xam ci diggante bi yaakaar naa war nga koo xam bu baax a baax a baax ñu suñu mbokk suñu xarit di suñu lépp sëriñ Ahmad Mbacke euh, Daarul Muxti yi mu sëriñ Murtada Mbacke mu sëriñ Cheikh Fatou Fall mu maam Thierno Birahim Daamal Daaru kon moom nga xam ne Eh, ku ñuy naw la ku naw la ku ñuy lay ngir yitte gi nga xam ne yitte woon ko liggéey bi nga xam ne mooy tasaare njàngalem sëriñ tuuba eh, kon moom la ñuy ak allah ci waxtaan wi di ñaan suñu borom mu defal ko lamine wu leer nañ ba li nga xam ne moom bëgg joxe lépp mu mu mu mu mu àgg ci ñi nga xam ne ñoo koy déglu ñu ñi nga xam ne ñooy déglu suñu borom defal ñu nopp yoo xam yu yuy lay doon waaye xol boo xam xol bu mën a lay doon ngir xam naa ne li mu fi wax incha allah bu buñ ko jëlee njariñ lay doon kon yàlla suñu borom dafa dégg akuk topp kon sëriñ bi xam naa kon dañ lay bàyyi kàddu gi rek nga ñëwal ñu ci tomb boobu nga xam ne tomb bu am solo la kon di ñaan mbokk yépp kon ñu teewlu ko bu baax a baax xam ne njariñ rek lañ fi jëlee. bisimilah maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di santaat yàlla bu baax di am mbégte ci ñëwaat ci jataay bu sell bi nga xam ne dañ fi fekk suñuy mbokk. suñuy mbokk di suñuy xarit ñoo xam ni yàlla daa def ñu teg leen fu kawe su ma jëlee lépp nuyoo bi yépp rek teg ko ci loxol sëriñ Saam ak sëriñ Masamba ak sëñ Seexuna Buso yaakaar naa ne waaw nuyu naa ñépp rek ginnaaw loolu nag dañoo waxoon ne nañ waxtaane محبة الرسول الكريم عند العبد الخديم في وقتنا وهمني خينا يغن نكو وقتاني دي لو غود غود لو خامني خينا خاجول تي بن جتاي تام واي تاي داني جيما غنا تاخاو رك تي ديغنت سيرن تي بوبام اك يونتبي عليه الصلاه والسلام بن كو مسا دي وقتاني داني خاوا تاخاو تي دوند ak ni ko yàlla fonke ak mbindeef yi niñ ko fonke ak saxaaba yi nañ ko fonke woon waaye loolu dama ragal ne mën nañ koo xaw a jël ñëw rek leeral lu gàtt ci ne saxaaba yi moom ku ne xam na ne bëggoon nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi ñépp a ko bëgg xol bu bu tumuranke rek lëndëm sori yàlla rek moo koy bay waaye ku mos dara dara lum néew néew ci leeru yàlla faw nga bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmm joo xam ni yàlla ci boppam da koo bëggal boppam yàlla da koo bëgg jox ko wàccuwaay woo xam ni gisuñu mu jox ko mbindeef ci misaal mu gàtt rek jaam boo xam ni yàlla ci boppam ak malaayka yépp dañuy maase di julli ci moom te yàlla dara waru ko te jaamu yàlla yi amul benn boo xam ne yàlla dana ko def bu may salaatu ala nabi inna allah wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima jaam boo xam ne yow booy dugg ci lislaam boo tuddul turam duggagoo wane ashhadu an laa ilaha illa allah duggagoo ci lislaam li feeg waxoo wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jaam boo xam ne julli nga xam ne moo gën a màgg ci ñuy def ci jaamu yàlla te faw nga tudd ko ci biir julli gi faw booy taaye nga ne ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu bu ñuy wootee nodd gi faw ñu tudd boo déggee noddukat bi ne ashhadu an laa ilaha illallah dañ ci dara jëteg ashhadu anna muhammadan rasulullah kon bu ñuy liqaam tudd ko te yooyu mooy jaamu yàlla yi nga xam ne xëy na ñi nga xam ne dañuy wane ak fiir ci yàlla am ñoo xam ne dañuy fiir ci yàlla ba duñ ci bëgg a boole yonente dañoo tumuranke te yàlla yàlla dañu dañoo tumuranke te sori ak njub te sore xam diine itam xanaa yàlla subhanahu wa taala moo fonkal boobu yonente bi jox ko cër boobu ci alquran fu mu tuddee boppam aminu billahi wa bi rasulihi kafaru billahi wa bi rasulihi fu mu tuddee allah rek faw mu teg ci rasul yi loolu mënoon na ci wax lu bare bare yaakaar naa yàgg nañ ko waxtaan du jar ñu koy baamu waaye lu mat a bàyyi xel la muy yàlla ci boppam moo ko fonk jox ko cir boo xam ni kawe na bëggal ko boppam def ko muy ab nattuwaay wax na ci alxuraan ne yónnente yépp da leen a dajale woon ne leen ku ci dajeek rasulullahi jamono na nga ko gëm te topp ko ñoom yónnente yi wa idaa axadnaa mina wa idaa axadnaa mina nabiyyiina miisaaqahum wala beneen aaya ba lama aatay naakum min kitaabin wa xikma tumma jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuuminunna bihi wala tansurunnahu qaala aqrartum wa axadtum ala dalikum wa isri qaalu aqrarna qaala fashhadu wa ana maakum min ashahidin kon yonente yépp la yàlla wax ne yéen bu nga ku ci dajeeg moom na nga ko gëm te jàppale ko si ñeg ñoom accord ci loolu ne ku ko ci deful tëkku la boole ci kon loolu moo tax it mbindeef yépp ko bëgg boo amee ku koy bañ ci doomu aadama lay doon waaye mbindeef yépp a maase bëgg ko gis nañu montagne bi ñuy wax Uhud yonente bi daa wax ne Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu maanaam montagne bi man damaa sopp moom Uhud man it ma soppal ko te Uhud man nga ne ay doj aw daj rek la te teewul yonente bi ne damaa sopp ma soppal ko moom yonent bi mas naa taxaw ci kaw uxut moog sayiduna abu bakrin siddiq ak sayiduna osmaan ak sayiduna omar ñu gis uxut daal di yëngutu foofu nit yàlla dañuy wax ne yëngutu bi farax la yëngutu mbégte la dafa bég ndax rasulullahi moo taxaw ci kanam ndax la cay firnde moo yonent bi da ko këdd ne ko usbut uxut fa innama alayka nabiyun wa siddiqun wa shahidaani uxut ne tekk ndax dana ko dalal ab yonante moo nekk ca kaw ak siddiq akub siddiq ak ñaari shahid uxud ne teg xadis boobu imaamul buxaari moo ko nettali ak tirmisi ak ahmad ak ñeneen ak ñeneen gis nañ <clears throat> dattu garab bi nga xam ne moom la yonante bi defoon mimbar ci kaw ci jàkka ji daal ci taxaw di julli benn ajjuma la génne néegam fekk boobu defaral nañ ko ab mimbar mu romb daatu garab bi fekk dafa jege néegam mu romb ko ñëw ci mimbar bi taxaw fi di jiite julli ba mu taxawee jàkk jépp dégg daatu garab gi di di di yuuxu yuuxu yu métti riwaayaat yi ko nett li am na riwaayaat boo xam ne wax ne fa xaaraka xuwaari sawri dafa mel ne yëkk wuy yuuxu am beneen riwaayaat boo xam ne dafa ne fa saaxati naxlatu siyaaxa sabiyi xataa tasaddaxa wan shaq dafa yuuxu ba xar moom moom garab bi ndax rasul day dafay daa taxaw ci kanam romb ko tey dem taxaw feneen alayhi salaatu wassalaam am na riwaaye boo xam ne wax ne te innu anina sabi yi dafa mel ne gone buy yuuxu ndax boobu saxaaba yépp ko fekk moo tax xadis boobu kenn wérantewu ko imaamul buxaari nettali na ko ak ahmad ak ibnu majada ak tabaraani ak daarimi ak ñeneen abu nuaym ak ñeneen ak ñeneen kenn wérantewu ko ndax ñépp ko kon monde yi àdduna yëpp lu dul doomu aadama rek bëgg na rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa dabbu kallamahu loolu la suñu tubaab wax yow man bi kilimaati mbëtt mi keroog bi ko yónte bi ne yaa dabbu man ana dane ko ana rasulu anta rasulu rabbil alamin yow yaay rasulu rabbil alamin qad aflaha wa xaatamu nabiyina qad aflaha man saddaqak wa qaaba man kadabak ku ànd yow mi ngi ci lu wér te texe na ku la weddi nag kooku du texe moom xadis boobu it amul sikk xëy na am nay wax yu bare bare yoo xam ne eh, def nañ ci yaakaar naa baax boo xam ne mu ngi ci eh, mahabbatu rasul karim indal abdul xadim gis nañ lu mel ne till till yeeg ak njamale yeeg ba ci giléem goo xam ne day ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko jàmbat boromam fekk wa dañ koo dàq mu ñëw ba ci rasul sallallahu alayhi wasallam mu yës bët yi tàmbalee jooy yonte bi ne ana ko moom gideem gi mu ne ko maa ngi ni mu ne ko yow de gideem gi nee na da ngeen ko jëfandikoo di ko war mu jural leen ca gétt ga ay doom yu kenn xamunum toll bu dee ba màggat nag mëntu leen koo jariñoo ngeen bëgg ko rey loolu lay jàmbat gis nañ pitax moo xam ne yooyu yëpp yu am na ngaa ne ahadis yu wér la pitax moo xam ni fi yonente bi ne ci biir jàkka ji la ñëw di di raf-rafi yonente bi ne kan moo tooñ bi tax mi man fajaa haadihi bi waladiha aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam benn saxaaba ne ko man maa fekk ay cuujam ma jël ko mu ne ko demal delloo ko ko loolu lay jàmbat kon ñëpp ko xamoon moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam doomu nag moo ci am ñoo xam ni na xamuñu ko saxaaba yi itam ñi ko yàlla may ñi ma yàlla mayoon tawfeex ñu gëm ko bëggoon nañu rasul li bu tar moom waaw danañ ci nettali lu bare bare bare bokk na ci ah, li koy tegtale lu mel na li urwatu bnu mas'ud as-saqafi nettali te mu ngi ci buxaari ak euh, ñeneen ak ñeneen urwat wax wax ne rasulullahi ni ko saxaabaam yi fonke mësumaa gis nit wala buur bu ko ay ay ay ay gaayam fonke ndax maata naxama rasulullahi sallallahu alayhi wa إلا نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده mooy ca sulul xudaybiya waa Makka dañ ko yónni mu doon def dox diggante mu yónnante bi waaye ba mu desee daan la ne kee def kee ma gis ne ko gaay mi fonke mosuma gis kuñ fonke noonu xaaxtandiku daa lay wax bu ko defee du àgg suuf gaay yépp dañ ko alawteku raay ko seeni seeni xar kanam ak seeni yaram buur bu ne fonk nañ ko waaye àggul foofu mu teg ca ne wa ida amarahum ibtadaru amrahu wa ida tawaddaa kaadu yaxtatiluuna ala waduihi dama gis bu jàppee njàppit mi dañuy xaw a rayante ngir kenn ku ne bëgg a jëpp jël njàppit mi barkeeloo wa ida takallama xafadu aswaatahum indahu wa maa yuxidduuna ilayhi nadar duñ ko xool jàkk ñee kenn dañuy sëgg rek di wax ndànk te kum ci yónni da ngay da ngay daw njëkkante kenn ku ne bëgg a def njëkk a def ndigal ndigal kon bëgg ko saxaaba yi bëggoon na Anas ibnu Malik wax na ne maa fekke mooy xajatul wadaa ci aj bu mujj gi yónnante bi di war saxaaba yi war ko fépp karaw wu nit for nga xam ne am na ci boo xam ne sax yónnante bi daa mujj ne nañ bàyyi bu wootee ba noppi moo leen koy séddale ndax da wax Abu Sulaym Umm Sulaym boobu borom kër ba la la fàtte moom la jox ne ne ko séddaleen moo leen di séddale kenn ku ne kawar kii mu jox la ñaari kawar kii mu jox ko benn kawar soxna umu salama ginnaaw yonte bi mi ngi amoon na kawar boo xam ni biir madina ku sa biir di mett da ngay def ndox jox gone danga ndox da nga def ci kaas jox gone mu dem mu xóoyalal ko ci kawar gi nga dem naan sa biir tane Xaalid ibnu Walid gis ñaari karaw yi mu defoon ci ci mbaxana mi moo rot mu bàyyi xare bi yépp nekk di wër mbaxana mi ndax ñaari xar ñaari kawari yonte bi moo ci nekkoon ñu di ko wax ne ko yow da ngay xaru mu ne leen mbaxane mii de ba ma ko dalee sol fu ma ko solee rek nooy gañe ndax ñaari kawari rasul lay sala sal ñoo ci ne alayhi salaatu wasalaam jëmm ji yàlla fonk me noonu waaye nag ànd ak loolu lépp yonte bi daan leen wax ne min ashaddi ummati lii xubban naasun yakunuuna baadi يود أحدهم لو رآني بأهله وماله daana wax saxaaba yi ne leen ñi may gën a sopp ñëwaguñ ñi may gën a sopp sama ginnaaw la ñuy ñëw te am na ci dana ci am waajoo xam ne suñ ne ko woon nga gis rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te joxe sa sa waa kër ak sa alal mu jaral ko yawaddu ahaduhum law yaraani aw law raani bi ahlihi wa maalihi إمام البزار رواية بمنقل ودفعل إن قوما يأتون من بعد يود أحدهم أن يفتدي برؤية أهله وماله أمنا na nit ñu ñëw sama ginnaaw ñoo xam ne ñoo may gën a sopp am na ci koo xam ne kenn ci ñoom suñ ne ko woon nga joxe sa alal jëpp ak sa njaboot gépp ak li nga am ci àdduna te teg rasul lay bët mu gënal ko ko loola loola loola moo koy gënal maanaam mu teg mu bët moo koy gënal boo mu nangoo joxe alalam yépp ngir mën a teg rasul lay bët xaddis yooyu dafa leer damay wax ne xaddis yooyu mënu maanaam amul ku amul ku ma gis lu dëppoog moom maanaam ku may Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu yonente bi daana wax ne maanaam daana wax nag ñooñee nga xam ne ñoo ma gën a sopp moom waditu anni laqitu ixwaani ak a neexoon ma dajeeg yow bëgg naa leen a gis ne da leen namoon lool loolu mi ci xadis imam ahmad am na ci beneen riwaayé boo xam ne wax ne mata alqa ahbaab yi sama gaañe kañ laay la mushtaaqun ila ixwaani wadittu anni law raaytu ko wax du bare bare saxaaba yi ko wax awalas naa sa mbokk yi ngay wax ñu leen mën may wax ñoom amanu walam yaraw na dañ ma gëm sopp ma te gisaguñ ma am na beneen siyaada boo xam ne wax ne ana ilayhim bil ashwaaq dama leen a namm ñooñee loolu buñ seetloo ñu ko kii rasul de sallallahu alayhi wa sallam bi junni wala ñooñu muy junni melo yi dugg goo xam ni daa far ci jëm ba jaral ko ba nga xam ne daa far ci moom lu may rasul de sallallahu alayhi wa sallam kooku si wàllu dëkk bi amul lu ñaareel ndax ci biir loolu suñu lañ gis koo xam ni boo mën a bi waaye siyaara siyaara bërëb ba Rasuul sallallahu alayhi wa sallam nekk dafa wax ne moom bu ñu tegale woon àdduna sépp ci alal àdduna si de ñu tegale ko alal ba mu fees dell ba ci asamaan si nee na siyaare bërëb ba Rasuul sallallahu alayhi wa nekk moo ko gënal alal jooju ci àdduna yaminu rabbiya mazaarul mujtaba afdalu min mil il bilaadi dahaba moom ay kër ak yooyu sax dafa wax ne moom da ko mënta bëgg ci boobu maanaam dafa mënta bëgg ay kër ak i alal ak yëf ngir bëgg gi mu bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo fees xolam maxat mahabati al muxtaara sayidana xubbil maganiya wal ahlina wal walada dafa mujj sa wax ne man bëgg gi ma bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam damaa fàttaloo bëgg bëgg beneen doomu aadama yun si fu aadi xubbuhu xubbal wara maanaam mënatuma bëgg doomu aadama ngir bëgg gi nga xam ne moom laa bëgg rasulullahi sallallahu alayhi bu dee ci wàllu jot ko itam ba tey daanañ gis muy wax ne fadaytuhu law kaana yufda bi dami wa bi lisaani wa yadi wa qadami fadaytuhu law kaana yufda bi dami wa bilisaani wa yadi wa qadami dami wa ahli wa awlaadi alfidaau lahu abdan xadiman lahu mus kaana li sanada mooy dara wax ne moom jekk na ngir jote rasulullah sallallahu ay loxo ci jekk naa ci joxe ko ngir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam njabootam ay waa këram ak léppam noonu la dami wa ahli wa awlaadi fidaawu lahu Sëñ Tuubaa lañ gis muy jëmm joo xam ni léppam da ko hadiyaal rasul de sallallahu alayhi te mu dëgg woon ci moom nag war a ci wax na ne jumlatu maali wa midaadi wa qalam hadiyatun lil mustafa baabi niam mooy mboolem lu ma am rek ba ci xalima yee ba daay yi may bindee دهنا كهدي مصطفى صلى الله عليه وسلم جبت له اليوم بروحي دا لين كترم يم لب لما جبت له اليوم بروحي والبدل وولدي ووالدي في العالم جهنا كسم روح بك جهنا كسم جمجي جهنا كسم سم دوم سم جبر جهنا كسم ويجر جهنا للنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبوته بخدمتي ونفسي من ساعة إلى حدود رمزي بتي لم أمون تي أي كركيف لك يا نبي منازلي ومواطني ومواضعي لك بالعلي متعودا كريم أما بربي بتي ريو ممدك جخنا لك أدي يا مصطفى صلى الله عليه وسلم بتي تري بكم نيوغو لك لساني مع الجنان موي دم رك غيس نين صاح اي ويرام اكي اتام يييب مو ديكو جيل دي جخ هب للنبي سندي وسهري وهب له سري رضا وجهري محمد وسيلتي وراحتي له بلاغتي له فصاحتي واحد نخ جماي واحد يب دفعنا كوكو هدية من مصطفى صلى الله عليه وسلم بتعنا ما تحم أمد الكل فيك الذهاب فيك إيابي معنا لبم تبير رسول الله صلى الله عليه وسلم نتابع دخمة ينقطع ما تعلم بعد كخدي ja xaddi jaaltuhu turaaba naalihi yaa laytahu laxadani bi fadlihi ñu gis bi fi Mamour Anta Sali nekkee moom yëngalu dara waaye ba fi Mamour Anta Sali jógee ci mujjug 1299 ci gàttal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tolloog 1881 xëy na ci la ab diir lañ ca teg diir bu gàtt rek mu dal di jaayanteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ubaayi'u yawma rasulal mustafa wax ne laa abtaxi xayra nabi wasila ku dul bi du sama wasila baana li kulli man lahu maaquulu anna wasilati huwa rasul taxaw nag ci cofeel googu la taxawee ci buntu yonente bi boobee la def yitte ci lépp mu jëmale ko ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax yonente bi ne ko man maa ngi ci sa bunt taxaw rek mel ni ku ñu jéng du ma yëngal du ma def dara lu may ci sa bëgg yaa sayidi yaa rasulallahi yaa xaradi inni ladal baabi كالمصفون في قرنه فكن معيني على نفسي وخذ بيدي وكن حجابي في الدارين عن محن دا واخيت ني سماي تيموي جايانتك موم بكروك نك جايانتك موم سي سما خول بكروك نك ماي مانا غيسيك موم ناخ غيسيك يونتك دو مانا نك دا تي يالا مسنا كو ماي اي جاي كون موم لوليت دا ني مانكو ياكار وير يا سيدي بايعته بفؤادي حين لم ترك عيني وأخدمه لله مفتردا يا سيدي يا بغيتي يا مطلبي هذه مبايعة إلى يوم اللقاء حتى يصافحك المصافحة التي يرجو ويحجو أن يكون محققا بكرة ما يمانا جل سما لخو تك سما لخو ما نجي جاين تيو سما لخو باي ما نجي ياكار نه بس دانا نيو مانا جل سما لخو تك سما لخو nga nangul maanaam mu jaayante boo xam ne ci sa bëgg googu nag moo nekkoon ci sëriñ bi di bëgg bu tar boo xam ne ku xool bindi sëriñ bi rawatina diir bi fi Maam Mor Anta Sali jógee ba ni mu sañce Touba ba ni mu demee ci géej gi diir boobu li mu fi bind da cee feeñ lool bëgg bu tar boobu nekkoon ci moom léeg nga gis mu giñ ko wax ne billahi ahbabtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi salawaat léeg-léeg nga gis lu mel ne mu xaddimatul xidma nga xam ne yaakaar na xidma yooyu ci Tuubaa la ko defee gis nga mu wax ne laa ilaha billahi alladi laa ilaha illa huwa alkarimu alalimu xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati maa sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi giñ ci yàlla xam nga doon jëru giñ ne ma yàlla digal maanaam bu ne bëgg naa yàlla rek bëgg naa yónte rek ñëpp xam bu ne sama dal ak samay yëngu lépp rek maa ngi ko ànd ak yoon ñëpp xam ko waaye da gi yoo ne billahi alladi laa ilaha illa huwa alalimul karim alkarimul alimu xayaati wa wa sakanaati maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam suñ duwaa àggoon na wax ne adduna benn bànneex fa fi am muy muhammad sallallahu wa sallam muhammadun zinatu dunia wa laddatuha mooy bànneex boo xam ne ku ko musut musoo dara محمد زينة الدنيا ولذتها صلى عليه الذي البحرين قد مرجا ما تقدر أن من دماء دير مسك نخبو أم دوي دن كوار دوي لو تمن أم نال دوي سك تموي بدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم غنمت حب المصطفى وأكتفي بذاك فالمعطى كفى فليكتفي دراوا من من ين يبت كسل أعمل genn bëgg rek la am muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yaabaahu aabaahu dana wax ne uma ku may moom maali siwal muntaqa lil maliki waali wasilatan dana wax itam ne tudd turu yonente bi alei salatu wasalaam ak di ko waxtaane ak di julli ci moom ak yu demee noonu loolu rek mooy wéttali mooy mooy mooy leeru sama xol moo muy wéttali itam muhammadun dikruhu unsi wa wa nuuru qalbi wa wa raaxaati taaha sururi sarmadan wa junnati anil mamaati ak wal wa jannati maanaam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy sama mbégte waaye mooy sama aljana su ma nekkee ci di ko tudd ak di ko fàttaliku ak di julli ci moom day mel ne maa ngi aljana dana wax itam ne di tuddu yonante bi moo xam dama koy tagg wala may julli ci moom loolu moom mooy cër bi ma yàlla séddi moom mooy sama cëru bopp bi nga xam ne séquma ko kenn te loolu du lu ndaw du ko kenn xeeb loolu jagleel suñu borom la subhanahu wa taala ذكر النبي المصطفى بالمدح أو بالصلاة قسمتي وربحي ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خيرا من الله dalika lam ajidhu bi taxayuli loolu ay pexe mayu ko mën a toog di julli ci yonente bi wala nga koy tudd di ko tagg wala yu demee noonu loolu sëñ bi wax ne loolu ay pexe mayu ko xewul bu rëy gi noonu dalika lam ajidhu bi taxayuli bal niltuhu bi maxdi taxsiis al alim jagleeg suñu borom la tabaraka wa taala ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وسكت النعمة àggoon na ci wax ne su ma wéradee lenn ma mën a saafara mooy saafara sama yaram di saafara sama xol mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun salla alayhi ci wax ne man bëgg gi ma bëgg rasulullah sallallahu alayhi ma mboolem lu aju ci mbirum soxna ak mboolem lu aju ci mbirum alal ak mboolem lu aju ci waruwaay ak dëkkuwaay bi man bi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayla àgg ci wax ne bëgg gi ma ko bëgg ba mu rasulullah sallallahu dama mujj mel ne nit koo xam ne fa naan lu ko tàggaleeg saxoon sakirtu sakirtu min xamri mahabbati nabi bëgg yonte bi daa mujj mel ne am am ñoll ci man ndax ñoll mooy tàggalee nit kay sagom def loo ko doxaloo ko doxin woo xam ni day mel ne ko am rek sagom loolu nag loo xam ne bëgg yonte bi da ko mujj mel mel ko ci man sakirtu min xamri mahabbati nabi fala azalu firtana bi muxrimi ba ak ci wax ne man dama lap ci bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam garaqtu fi baxri mahabbati rasul ba àgg ci wax ne guddi yeeg bëccëg yi بتشك جيلا بمو جلال دم كريس لكو دي جمان يربك كتر أحمد من سار نهاري ليلى بحبه وقد أضاء الليلة لول وخنا جلو بري بري بري بري أخنا يولن تبي موي سمع الجنة وسيلتي وجنتي محمد صلى عليه وسلم سلام سلام در أخنا موي سمع فرطة دي سمع نافلة دي سمع سنة موم رسول الله وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا محمد ولسيدنا شفيعنا محمد صلى عليه وسلم سلام wax ne mooy sama موم moom لاي ووت موي سما samay تام موي ليرو سما خول وسيلتي ومقلبي ومنيتي وجنتي وجنتي وبغيتي سيدنا محمد أفضل من مضى ومن ياتي ومن في الزمن نمو دوني تام كوكو ووتال أم كم دراهم يونتبي كين ديم تك موم ولا مدرك من كلا لو دي دكو دقي دا يوحنا بالله لم ياتي وليس ياتي مثل ابن عبد الله ذي الآيات والله لم ياتي وليس ياتي خلق كمثل سيد السادات لا يظهر قدر مثله ولم يظهر وهو الخلق والفرد العلم معنام يالا تي موم دول دوغلاتي كومل موم motax loolu dul amat sha alladhi al-amru lahu wal khalqu an la yakuna kan moom da ci daan wax ne loo amati moom giñ ko ci yàlla boole jiital wax ne moo moo kawe mbindeef yépp nabiyuna ahmadu faaqal anbiya wa rusla wal amlaaka inda yépp moo leen moo leen féete kaw yónante yépp moo leen féete kaw malayka yépp moo si kaw ñi kawe moo leen féete kaw ñi ñëwagul it te amul cëri ñëpp moo leen féete ko amul kenn ku ko ku ku ku muy nurool ci lenn te itam danaa wax ne ci wet yépp nag la leen kawee inna bna abdillahi faaqa al xalqa lafzan wa maanan xuluqan wa xalqa ci wet yépp ci jikko ci bind ci daraja ci lépp la leen féete ko foofu wa danaa wax ne aalal baraaya wa anqaaha wa akramiha muhammadin man lahu maa xilqu muxtasiba dana wax sax ne mbooleem nit yàlla yi am cër ak ñi yàlla tànn ñëpp fañ yem ñoom seeni daraja foofu la ay darajaam tàmbalee jëm kaw bidaayatul maaxi nihaayatul xiyaam loolu wax na ci lu baree bari yoo xam ne bu ñu ko toppee day gën a gudd moo tax dawul nangu nag ku ko tëkkale kenn dana wax ne inna abal qaasim laa yuqaasu bi basharin la alladina qaasu képp koo xam ne yaa ngi koy wutal morom yow xamal na réer nga te sànku nga te nekkoo ci yoon nunguutoo nit ñi nga xam ne dañ koy wax lu ñaaw ñooñu it gis nañ mu wax ci baat yoo xam ne ci ñoom la ko mës a jëfandikoo wax leen ñoom it baat yoo xam ne sëñ bi dawul jëfandikoo baat yooyu waaw ci njëlbeenam nag du fi Maam Mor Anta Sali jóge ci la amoon yitte siyaara ji Yonent bi alayhi salaatu wa gis nañ ci biir xasida yi junj na ko ba tey arju bi rahmatihil muhdaati sayyidina zawri madinata daaral rayaaxin bu waxee ba tudd madina da cay teg baax yoo xam ne yàlla ne yaa foofu de mooy dëkk ba maa ngi ñaan yàlla mu may ma bis ma mën ko siyaare moom dëkk ba bi nga xam ne mooy dëkk bu neex ba nga xam ne dëkk ba da lépp dañ ko gët gëttu nooy yoon bi alayhi salaam moo ko particulier daarun mata maa yasuruha zairun li hudan yasaat hiya daaru daarul xaqi wa diini kër la koo xam ni ku ko siyaare ji te dara ci njub nekk ci yow danga am texe xol texe xol di ko am saadatu qalbi saadatu qalbi ya di nga ko am te loolu lu wér la maanaam dëkk boobee moom mooy dëkk boo xam ne boo ko duggee di nga yëg ne dëkk bi bokkut ak benn dëkk madinal munawwara sin bi nag dara wax ne li ma tee siyaare ji mu wax ne gàllankoor la boo nekk ci man am na gàllankoor goo xam ne moo te ma man ko siyaare ji gàllankoor boobu ñaan na yàlla teggil ko ba tey dara wax ne wa huwa alladi jismi جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زوار sama jëm moom gàllankoor na ba mënuma siyaare ji Moustapha alayhi salaatu sama xol ak sama làmm yi wax mu ne ñu ngi alayhi léeg du yem ci gàllankoor boobu gàllankoor bi day wax ne man dama ci amul pexe xasatu xasatu sawrahu wala xawla wala quwata illa bil ilahi musjala maanaam dama am gàllankoor boo xam ni dinaa ko siyaare ji waaye pexe pexe laa moo mën a def ba siyaare ji léeg-léeg gàllankoor bu mu tudde ko ne sikk la xëy na sikk daal moo ne ci man yoo xam ne moo tax yàlla xañ ma ma man koo siyaare ji yaququ ni aybi an siyaara وأرتجي بمدحه بشارة نلك وحنا يسوءني عيبي وعيني لم ترى ولم ترى المدينة المنورة سك سنكت من دال بمنو ما دم سيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم سك سوجي دال متنا ملون waaye léeg-léeg mu àgg ci wax ne loolu weesu na sikk bàkkaar la xam naa boo xam ni mën a siyaare ci rasul de sallallahu alaihi wasallam bakkar boobu da ko daa jégul xafaaru li xafir dunubi wafku kan kabari bi man alayya li tarki zawrahu aaru aaru yàlla ma yàlla yàlla suñu borom maa ngi la ñaan nga jéggal ma te xob bi samay jéng yitee ma mën dem siyaara ji Moustapha sallallahu alaihi wasallam bi nga xam ne ñàkk gi ma ko ñàkk siyaare gàcce la ci man mooy li may woote ci bëgg ko anut ak ma toog bañ ko siyaare alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg nga gis muy mébét yaa laytani qad zultuhu bi jasadi ka xaatiri xatta yuzida awali ni sama xel mi di ko siyaare ji waxtu ne nga xam ne ma ngay dem ak a dikk yaa ak a neexoon ma mën a am sama jëmm ji nag dem fa siyaare ji alayhi salaatu wasalaam yasuuruka minni xaysu maa kuntu yaa muxyi fuaadi wa ruuxi bil musaalaat la rëy cofeel googu ak namel googu boo seetloo ci mbir mi day gis day gën di day gën di yokk waxtu day gën di mag inni laka dahra du shawqa foofu bi yadi wa bil mulaqaati judli ayyama sabi am na sax xasida bu gàtt bu ma gis ci xasida yu njëkk ya la boo xam ni moom ci mahabbat rasul karim maa ngi maa ngi ko tudd ne mooy sawratul ishq xam nga mel ne cofeel gi de léegi day yëngu yëngu koo xam ne du ko may jàmm loolu la wax ne fal qalbu yahtazu xubban zawra rawdatihi sama xol daal yëngu na rek bëgg a siyaare ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak rawdatam ba yaa laytani tirtu aw lii kaana durnuuf ak neexoon ma mën a naaw dem siyaare ji ba alayhi salaatu wasalaam aw niltu zaadan baliigan aw qadartu ala qat'i mahaamihi حيث الشوق مألوف لكي أزور رسول الله ملجأ له يوم ma mën a naaw mbaa mën a am giléem mën a dem mbaa mën a mën a am yóbbal mbaa a dog gott beeg àll bi dem siyaara ji Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne mooy sunu wéeru waaye ak lu mën a ne ci tiitaange ci yoon loolu waxin yooyu bari na lool léeg-léeg nga gis mu mel ne luy am tiit ci ragal jóge fii te dem siyaar yi mu ko yasuuni mawti wa nii lam tara wa lam a madinatal munawwara yëmul ci loolu ña dëkke madina da leen daa wax ne leen yéen de war ngeen a sant yàlla bi ngeen jegee Mustafa sallallahu alayhi wa dëkk ak moom foofee ca madina am ngeen xewal gu rëy ahlal madinati مني سرمدا لكم ابقى سلام يطيب القلب والجسد ما غادي دي نوي جلوى مدينه المنوره الدهر في صف وتوسعه يكفيكم الله في الدارين من على دار فزتم بكون ابن عبد الله جاركم وكونكم حوله فلتحملوا الصلاه لن نعمل ñu leen ko leen wax ne yéen li ngeen am ci xéwal sax xamu leen ko dëkk ak rasul allah sallallahu alayhi wa sallam wër ko mooy xéwal gi gën a rëy ci ay wax it da ngay gis mu mujj melne yitte moy ginaaw jëm ma mënta dox dem madina munawara yitte moy gis ko nak ci dul ay nelaw te loolu wax na ci lu bare bare kulla zamani la azalu atlubu liqaahu wa artaji wa arghabu kabura azza ma talabtu ya aziz milka wa ma huwa alayka bi aziz waxtu wu ne maa ngi sàkku di wuta dajeeg rasulullahi sallallahu alayhi wa li may sàkku rëy na lool waaye yàlla moom dara rëy te dara tëw ko dara tëw ko mën na lu ne loolu muy gën na ko ba tàyyi laallahu yalxadu nii wa yadkuru wa yashkurul kasra wa naxaw yënn ak xëy na coono yi ma nekkee bu yàggee dana xool fii ma ne wala mu teg ma bët laallahu yuhibbu nii wa yadkuru xëy na sax yàlla def ci moom mu bëgg ma tax mu fàttaliku ma ba teg ma bët moom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg mu ne ko itam far dama bëgg na nga xool ma benn donte benn xool rek maa ngi la koy ñaan nazra wandur ilayya bi nazratin tamxu biha maa bi min addaa il xafiyi wa ashfiqa maa bëgg nga yërëm ma yërëm coono bi ma nekkee te teg ma bët يوم مصطفى عليه الصلاه والسلام وانظر الي بنظره تنفي الشقاء بطل ونظره ليهب يلقى بها درني باغتي ني غيس نك موي نيان يالا نيكو يالا مكو وان الهي فصلي بغير انتهاء على المصطفى ذي المحيا الصبيح صلاه تريني هنا وجهه عيالا ليشفي قلب الجريح Mangi Juli, julli julli go xani amul fumi yam ci mustafa sallallahu alaihi wasallam borom arkanam bu leer bobé di ñaan yalla julli gi nak mu mu defal ma ci ma mëna gis na xarkanam ba ci luddul ay nelaw ci ak mom ayaana ngir mu mëna a sama xol bi nga xamné dafa bari ay jam-jam ngir joxe ku bari ci lool nak ci atum 1311 ci koor ga fi ci Touba bi muy i'tikaaf ci fukki fan yu mujj yi Cheikh Mouhamadul Basir wax na ne ca la njëkk a gisee rasulullahi sallallahu alayhi wa ci jàkk jooju yi nekk ci Daaru Xudoos Cheikh Blaati daana ko am na gis yu ko njëkk waaye gis yooyu mel na ne gis la ci nelaw loolu loolu lay noonu ndax bii sëñ Basir dafa wax ne mooy awwalu ma aayana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko Cheikh Mouhamadul Basir wax ci la njëkk a gis rasulullah sallallahu alaihi wasallam bam ko gisee nag gis ba sëñ bi su dafa ne wara sitrin raqiqin shaffaf mooy ñi ngi seen yonante bi waaye am na lu mel ne rideau bu dox diggante moom mu gisit mu am ñu àndal mu am ñu àndal ñu ko jege lool ñooñee ku mel ne doomi ahmad ibnul hasan ci téeram bi rex xayb rex xaybal baxdi yakobi wax na ne ahlu badrin la daa mel ni ceeb laat la ko jële wala loolu la wax waaye lu mën a xew sëñ bi mu gisee yónente bi am nañu yónente bi àndal sëñ bi bëgg lool loolu gis nañu mu wax ci lu baree bare wajhu nabiyil muntaqal mu jëmmali waajahani waliya qaala amali xar xar kanamu Mustafa sallallahu bu taaru boobee day jandoo man moo tax la ma doon mébal lépp am naa ko وجه النبي المنتقى قد أسعد محبه في أبد فسعد سعادتي سعادة لا تنقطع بإذن من كرمني فضل الدبيع أكرمني الباقي بأعلى بأحلى عسلي بعمري عن الأذاب الغسل أنا لما يلا دخل نخي بمودق نخي تلم نخرتن المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم بلا جلو ويجبير بمجاكا لهم تقول سنبي أم mbir ma nam ko bëggee ndax dafa wax yonent bi ne ko lii doyuma gis bii ni rek ma lay séen loolu moom doyaguma man li ma bëgg mooy gaa yooyu nekk ci yow moom ma jege la ba gën leen a jege Cheikh Abdoulaye daana ko li nee na yonent bi xamal ko ne ko ah loolu day du lu yomb ndax ñii de dañoon ay samay saxaaba lañ yu àndoon ak man di taxawal diine di jihaad ci yoonu lislaam ba yàlla may leen cër gi mu leen cër mu mu leen may jihaad jooje nag weesu na waaye daraja ji moom yàlla mën na koo may ku ne daraja jaa ngi yor ko yàlla mën na koo may ku ne yaxtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dul fadlil azim ne ko nag boo ko bëggee faw sa yitte mooy doon taxawal lislaam te danga nga ci daj coona boo xam ni bu rëy a doon te da ko muñ te doo dellu ginnaaw sartoon teg moom la muy sartoon teg moom ba waxee ba àggal sëñ bi ne ko loolu yi nga sàpp lépp nangu na moom naa la jege rek ba gën a jege gaañi ci yow loolu ak ak ak bëgg loolu rek lay tekki bëgg dëgg dëgg bu wéree ci ci doomu aadama dara du mën a dox ci diggante ak moom dee sax du mën a dox ci digganteem ak dem ca kam bëgg mooy la waaye dina loo adib bi ma shiita gayral bu'di anka tëjit aw faa muhibbin bi ma yurdika mubtahi ibnul farid moo ko waxoon suñu borom ne ko mbugal mu la neex man nga ma ko teg ba mu des sori la sori la daal moom mooy mbugal bi nga xam ne mënuma koo dékku moom waaye lu dul loolu mën naa ko dékk wa bi ma fii hawa taxtabir nii ixtiyaar yi maa kaana fiihi ridaaka lu rek mën nga ma koo mën nga ma koo nattoo ba mu des nag sori la loolu wax nañ ne mooy sababu tukki géej gi ci baatin sabab tukki géej gi dafa am ñaari sabab sababu zaahir te mooy tooñ gi ko tubaab yi tooñ te jëguñu ko fenn génne ko ci kaw ak tooñ te defu leen dara ñu génne kom réewam loolu sëñ bi saxal na ko waaye am na sababu baatin te xam ngeen ne mbir moo gis ci zahir rek am na baatin bu nekk ci foofu baatin boo gis zahir la taaw taaw zahir boo gisee baatin ko taaw loolu la gaañee wax sëñ Basiru nag dafa wax ne bi mu gisee yonente bi ci koor goog yi taxallala al ishqu bayna aqniyati dami wal wal uruqi minhu cofeel gi dafa gën a dëgër ci moom xam nga bu fekkee ne dem na ba bëgg a gis yonente bi nekkoon ci sëriñ sëriñ bu ne moo jaar ci moom mujj mu dëgmal bëgg a gis yonente bi ba gis ko nag mu wóor ko ne bu doxee moom dana gën a jege foofee nee na yoon da koy yokk fi ne dafa mujjoon bëccëg yépp da da koy woor waxtu wu ne itam mi ngi ci tudd yàlla ak jaamu yàlla du nopp lu mukk du yendal du fanaan amatul soxla ndax gis googi mu ko gis wara a sitrin daqiqin shaffaaf nga xam ne gisul léppam ak sorente boobu loolu mooy gën a dolli cofeelam xam nga loolu da ko da ko yokk moo tax yonte bi su suñ basir wax ne mujj na fa kaana nahaaruhu tilawati ana al-layli wa atrafa an-nahar haiman mughraman bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daayima salaati wa taslimi wa thanaa'i alayhi waxtu ne muy julli ci yonte bi nekk ci jaamu yàlla guddi yépp mu koy fanaanee jaamu yàlla dawul nelaw moom guddi mësta nelaw guddi moom sëriñ bi alayhi ridwanullahi tabaraka wa taala léegi nag bi mu gisee yonente bi ci ay sasin te mi ngi tolloog 1894 ci euh, miladiye xam nga ci déwén sa rek la dem ci géej gi diggante bi nag mel na ne bëgg na fee doxalee aj aj bëgg na fee aji njëkk natt bi ñëw ndax xamoon na natt moom dana ñëw loolu it ci riwaawu nabi Cheikh Mouhamad euh, Lamine Diop Dagana wax na ne ki ñuy wax Mouhamad wuldu xam bi ak Abu Hamid Daymaani wax na ne ko sëriñ bi ci at moomee nee na ko xëllëka ilal xaramayni sharifayni min shaw ndax bëgg ngaa dem alxaramayni sharifay li makka ak madina ne ma ne ko ajal wallahi suma ajal fa man lii bii maanaam loolu kay loolu rek laa bëgg loolu kay gis naa ci yàlla moom mooy sama yitte jëpp lu ma koy amee sëñ bi ne ko demal gànnaar nga waaj déwén nga ñëw dañuy aji bu soobee yàlla déwén maanaam bëggoon naa gaaw dox la fekk aj balaa natt baa ñëw waaye moom naar boobu Mouhamadul Hamdul Abrahami nee na ba ma demee di waaj fa ida bil xarakati aw ma lu may jëkkee rek dégg ñu ne yóbbu nañ ko ci géej gi ne yóbbu nañ ko ca géej ga inna lillahi wa léegi nag li ko yónte bi waxoon nag ne ko faw coono yu bari nga jàngoon démb coono yu mu ne xam ne jàngoon na nangu waaw bi muy dem nag ci bi mu génnee keroog mbàkki bari di dem war a gisee ñoom ca jeewal ci yoon wi moom gis na rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis boo xam ne dara doxul digganteem moom ginnaaw bi daana ko gis lu bari waaye saxul mais léeg gis ko léeg-léeg du ko gis yàlla itam teg ko natt yu bari mu muñ ko muñ bu rafet coono bu ne daj na ko coono bu ne daj na ko juróom-ñaari at ca géej ga ca Gabon yu teg tuuti yu ñëwee fii ay weer la fi am ñu yóbbuwaat ko Mauritanie ñeenti at Mauritanie ba mu fa jógee yóbbu ko fële ca Jolof juróomi at ginnaaw bi ñu yóbbu ko fii ci Njaareem def ko résidence surveillée ca ca Njaareem ba fukki at ak juróom ba niñ ko mo noppee gis sëñ bi ca géej ga lam fa jànkoonteel wax na ne man du ma ko nettali daj naa fa loo xam ni lu dul ruugu génn la fa daje ko gën a gën a metti mi ci jawsakul atu wax na ci lu bare bare wax na ne laqaytu fi tilka ma la azkuruhu abada dina daj naa ba loo xam dama ko wax mukk ngir sama digganteeg sunu borom tabaraka wa taala njaboot gi mu bàyyi woon fii noppalu wuñ tubaab waxtu ne seen yitte moo doon dajaat tasaare njaboot gi ak mag ñi kenn ku ne ñu lay sonal muy ñu kenn bi wax ne wal ahlu an nii tafarraqat li madxi lladi an lul madihu qasir sama kër yépp wéet na tey sama njaboot gépp it tasaaroo nañ te li ma ko teg mooy bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ba di ko tagg rek tagg yi ma koy tagg ak nekk yi ma nekk ci yónte bi moo ma teg loolu ci biir géej gi itam gis nañ léeg-léeg demee ba jaaxle dañuy gis yonte bi leen ak yonte bi lay woo axisni axisni yaa safii wasilati huna wa gadan yowma samaau tamun rek mu woo rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fasal xaaliqi taajila aw bii bi muniyati léeg-léeg mu ne ko maa ngi lay sàkku ci yow yonente bi nga ñaanal ma sa borom mu àggale sama yéene te yéene ji man dinay wax ne li ma ci yaakaar moom la jub rek mooy mooy siyaara boobu siyaara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mën na ko jamtal boobu waaye ci biir tukki bi moom ku seetlu xasida yam fa def da gis ne cofeel gi day gën di màgg moom ci wax na ne tanmu mahabbati allati lii haajaha rabbi alladi kulli yëti maanaam cofeel gi ma bëgg yonte bi day màgg day màgg bu dee tey téeméer boo lëggee ñetti téeméer lay doon jëm kaw loolu xasida yam fa defee day gis léeg-léeg mu wax ne wa shawqu yakk wii nii maanaam cofeel gi day ñaas sama yaram maanaam bu doon mi ngi ne mbubb ni ñu koy tegee feeru passé di ko passé noonu la cafel gi def ci moom wal xubb yudlii nii léeg-léeg wax loolu léeg-léeg wax ne laka alayya hadaya shi'ri naafilatan li wajhi rabbi bi xubbin qad baral kabida cofeel koo xam ni day yatt ab xol aku res loolu wax na ca bayit yu am na leneen wax ne salaatun wa taslimun من الله سرمرا على من به أرجو من الواسعين ليلا على جنتي دنيا وأخرى وجنتي على من نهاري سار من حبه ليلا على الرحمة المهداة للخلق جملة أنيس الذي حبي له صار لي ليلا على قدوتي كنزي وجاهي وعزتي شفيعي الذي أنسى لي الغيل والخيل على حجتي دنيا وأخرى وحجتي shafi'i alladi uxfa bihi makra wa sawla bay yu yéem wax ne ay bëccëgam dafa mujj ñuul kub mel ne lëndëm ngir cofeel bu tar gi mu am ci rasulullah sallallahu te moom mooy léppam mooy ajam di ajanaam di am koomam di darajaam léppam ginnaaw bi mu ci géej gi itam bi ñu jéggalee noonu yi dafa wax ne ju juññi na ne bëgg lu neex yonent bi moo tax mu jéggal leen te mas na ko déggee li wax ne afawtu li ma safwi kalkali wa qultu li irdail muqaffal muammali donte am na la ci topp mën naa jamtal leneen waaye mën naa jamtal lii ma wax ne itam diiru mu nekk ci kaw suufit dañoo gis ne yitteem moo doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wax sax ne man liggéeyal yonent bi mooy sama diine diini ya xidmatu nabil maqbuli loolu wax na ci lu bare bare wax na ne liggéey yonante bi dafa mujj maanaam jël sama lépp sama jëmm jëpp ak samay waxtu ak sama lépp maa ngi ko def ci liggéey yonante bi alayhi salatu wasalaam taabu fikri wa intidaamu kalimi fi xidmati almuxtaari faxri qalami taxdimuhu yaqadati wa nawmi ala alladi xidmatuhu ashgaali ما حد سرا وشك والإدغالي وقت جد بره بره وقت لجيري ينتبه دفع أوكي بس ما لب دفع جل سما لب سما جياو سما يلولياو لب تلي جيري ينتبه عليه الصلاة والسلام لا بره تلي تحم هو اللي مو يبقي ينتبه عليه الصلاة دعاني لإخدام النبي حب ذاته يقودني لخدمة المختار رجاؤه وحبه للباري bëgg gi sax bu dee ci xasida gi mu def fii ci Touba lu mel ne muxadimal xidma bu ndaw bi gis nañ mu wax ne wajaal nii mimman yaxdimuunahu fil jinaan suñ borom maa ngi lay ñaan ëllëg yow ma xiyaam bu demee ba aljana nga def ma foofee ma bokk ci ñi ko fay liggéeyal moom Moustapha alayhi salaatu wasalaam dana wax ne bëgg liggéeyal yonte bi loolu teraanga la ju xéewal la gi itam yoo xam ni xéewul fitiwu ko kaw daana wax sax ne mooy sama daraja daraja ji gën a rëy ci man mooy liggéeyal Mustafa alayhi salaatu wasalaam ziinatu zahiri wa batini maan kawniya xaadiman lahu muttabia ni mu ko daa liggéeyee nag ci lu xam naa mel ne waxtu waa dem ci ñeenti anam moo ci moo ci moo ci fës bi dem da nga ci ñeenti anam yi da ko daa mit da ko daa liggéeyal léeg-léeg mu wax ne da koy liggéeyal ci topp sunnaam léeg-léeg mu wax ne da koy liggéeyal ci tasaare diine ji léeg-léeg mu wax ne da koy liggéeyal ci tagg ko julli ci moom ñeent yooyu bu ci ne wax na de lam cey def liggéey yonente bi alayhi salatu wasalaam la ci jóg bu dee topp sunnaam moom sëriñ Tuubaa mooy ci gën a dëppoog sunna si yonente bi alayhi salatu wax lu bari ne soo gisee ñun ne sëñ bi daan def nangam bul sikk ne mooy sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax sëñ mos la juyóog yonente soo gisee lu juyóog moom nag xamal ni benn yow la nga dégg moo wérul wala yaa xamul mbir bi nam demee wala addis si jaxasoo ci yow wala boog yow daal dégguloo daal waaye si moom li mu def mooy di dëppoog sunna si yonte bi loolu amul sikk xam dund ndax sëñ bi jenn yitte la amoon muy fexee xam la yonte bi di def daa def mu di ko defee na mu ko daa defee yow ma al yawma xaajaatun uammiluha si waqtifaika qafwal qalbi wal badani yi mu doon ci topp ko topp saa yi waaye xol bi sax topp xol meloy xol yeeg axwaali xol bi ak jikkoy xol yi yooyu yëpp da ko di daa topp أسلمت نفسي لرب الله شريك له مع الذي قفوه شغلي وحاجاتي معنى يتم وي توقف يرنتبي عليه الصلاة والسلام لولي دراني سن بروم مدف موم اك بغم دي توقف وقت وني بغو رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل هوايا تابعا للسنه لولي لا ديغلي موي سوليسيون تبي توب كو لا ديغلي واخنا ني ايها القوم سارعوا لاتباع سنه المصطفى رئيس الثقات واسلكوا نهجه جميعا تفوزوا برضا ربكم وبالجنه جمله الخير في التقى باتباع سنه المصطفى عليه الصفات فالخير في مختاره المختار لا في الذي نفوسكم تختاروا سيد لي مصطفى تان يين نيت غير نيكتي واي بولن سيد لي بكن غير نيكتي waaye nag sunna ci ci sëñ tubaa mooy nga boole tawxiid ak fiq ak tasawuf loolu wax ne ahmaduhu wa jaada bi tawxiidi wa axawayhi sunnatil waxiid loolu nag mooy sunna dëgg dëgg te yonente bi alei salatu salaam te loolu mën na ko déggee ci xadisu jibril bi mu laajoon man iman man islam man ixsaan yonente bi ca mujj ga mu wax ne jibril ataakum yuallimukum dinakum diinakum kama qala alayhi salatu wasalaam ñaareelu anam gi ci nim doon liggéeyal yonent bi mooy tasaare diineem moom sëriñ bi ci njëlbéenam dafa wax ne yonent ba lam nekkoon réer nga tax na mu réer réer tax na mu nëbbu ba kenn xamatul yoon yitteem di yeesal ko lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra ba mu jógee itam ñépp da leen a woo jëme ci ñu xamaat la fi yonent bi bàyyi woon jéem koo jëfe yaqulu ahmadu ila saada yenn yadul mala bil ilmi wal ibaada loolu yëmu ci dafa taxawal ay daara daara yi alxuraan taxawal na ko ñu bari ci mbooloom mag ñi am na ñoo xam ne leen féetale woon ci jàngale alxuraan ku mel ne sëñ Daam Abdurahmaan Lo ak ñeneen yu baree bare bare sëñ bi ay daara yu bari la amoon bu dee xam-xam bi bari nañu ko daa jàngal jàngaleel xam-xam Jaara borom saam xam ci ñi doon jàngale xam-xam ci la bokk borom daarul moo tax ci ñu doon jàngale xam-xam ci la bokk sëñ euh, Mbacke Bousso ci ñu doon jàngale xam-xam ji la bokk ak ñeneen ak ñeneen ñu bari sëñ sëñ mët dem ak ñeneen ak ñeneen ak sëñ mët euh, Lamine Gueye sëñ mët Lamine Gueye firdaws ak ñeneen ak ñeneen moom ci njëlbeen bi sëñ bi ci moom moo daa jàngale ci njëlbeen bi waaye mujj gi daleen leen a bàyyee ñoom njàngale mi féetewoo nag di leen bindal ay téere mboolem li ñu war a jàng bind na ko bu dee ci tawxiid bind na ci lu bare bare bare bare bind na ci mawaahibul qudus ak faydul xaniyil muxni jasbatu shixaar ak yeneen am na mbokk moo xam ne yaakaar naa lim na ci lu bari lu xaw a jege téeméer ay dog dogaan yoo xam ne ci tawxiid lépp lekk rekk la ko sëñ gën bu dee fiq bëri ci lu bare bare bare jawharu nafiis ak eh, tasawudu shixaar tasawudu shubaan ak yeneen ak yeneen bu dee ci tasawuf bind na ci masaalikul jinaan mu nawiru sudur mu layyinu sudur maxaalimu niiraan fatxul mannaan ilhaamul wadoon ak yeneen ak yeneen yeneen kon moom dafa féete woon li ñu war a jàng ci diine mu tëlifaat ko leeral ko ya ca lëndam mu indi mu leeralaat ko la guddoon mu gàttal ko ba ci làkk bi nga xam ne moom la yonte bi doon wax muy làkku la ñuy jàng diine ji itam tëlif na ci saadatul tullaab wa raaxatun li taalibil moo tax mu daa wax ne abussu li wajhi llahi ilman mubarakan yasurru alladi ahla ahya layaliya an qumi man damay yulli xam-xam yoo xam ne xam-xam yu barkel la te lépp yonente ba yàlla digaloon ne ko xum fa andir moom bëgg na ci moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom ci yooyu loolu may wax qumil layla illa qalilan loolu moom daat mahabbatul ilahi wa nabi qalbi li nushi aqrabi wa ajnabi nee na loolu li tax may jàngale mooy yonente bi bëgguma ko bëgg mooma sóob ci di jàngal ñi jege ña sori ñëpp rek laa jàng waaye yëmutoon nag ci daaray xam-xam ci daaray xam-xam rek ak alquran dafa taxawaloon itam daaray tërbiya ndax tëskiya ci mission yonente bi la bokk yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaaba dégg nga wal xikma maanaam tëskiya sax moo jiitu moo tax sëriñ bi daa wutoon tërbiya yoo xam ni moom moo ko jiiteel boppam ku ñëw tey mag mu dugal la ci ku jàng ci daara xam-xam ji ba noppi mu tàbbal la ci jaar na ci bala mu la bàyyi boo fa nekkee ba ba ba ba mat sëkk jag say melo jag mu raxas ci yow mboolem lu bon dugal ci yow mboolem lu baax doog laa yeewu sëñ bi yëmul ci loolu bi mu nekkee nasaraani ca géej ga ca Gabon daana leen woo ci lislaam am na sax ñoo xam ni ci moom lañ jaar dugg ci lislaam ay tubaab wax nañ même Gabon euh, président ba fa nekkoon ñoom waa réew ma joom nangu nañ ne sëñ ba sëñ tubaab moo fa nekkoon daana ko wax wax kilifa yu bari ne leen sëñ Cheikh leen woo gis nañ lu mel ne seen bindu gam fa binde wax na ne yaa ayuha yahudu wa nasara kunu li xayri mursalin ansar ansara loolu wax na ci lu bare bare ne yéen yahudi ak nasaraan yi kaay leen jàpp ci sama waaji ji muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuubu ila al ilahi watlubu al huda minhu taala bi ittibaa'i ahmada tuub leen dellu ci yàlla te topp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daa leen wax itam ne bu ngeen tuubut bu ngeen tuubut da ngeen alku daan leen tëkku itam wax na ne waylun lakum in lam tatubu lil jalil bi hubbi abdihi habibihi al khalil ku ci tubul beug rasul sallallahu alayhi wasallam na xamne ci tuskar la jëm ak alku lastum ala cheyin ida lam taamalu bima bihi wasaakum almufaddalu wax na ci lu bare bare bokk na ci lim doon liggéeyee yonente bi itam mooy tagg yonente bi wax ci lu bare bare bare waaye tagg bi dara wax ne yàlla kese kese moo tax dama ci bañ a taxaw muy gën a gudd waaye wax na ci lu bare bare bare bare daani ila madaxi nabi xubbu zaatihi wax na ci lu bare bare bare wax na ne tagg yonente bi li maa ngi mën a wax di ko def du ma ko bàyyi mukk bor la ko jàppe woon ci boppam am ndax ku bin nasri wa nidaami maa dumtu qaadiran ala kalaami dara wax ne amuma jenn wax ju may tagg yonente bi rek mooy samay wax madaxu nabiyil muntaqa kalaami moom mooy samay wax درواهتم سمعير من غير لا مذهب بن لا تعب متقيون النبي عليه السلام لغير النبي بالنبي لم أذهبي والمرح صار ديدني ومذهبي درواهتم لي موسى ما سريع موسى ما يوم أسلمت نفسي لرب جل عن ولد مع الذي مدعوه سرعي وعاداتي موسى ما آليتم موسى تتقين الله وتك ترمى تبجح سنة لنن ni arab yi def rësal ak yooyu du ma ko dugal ci ci tàgg yonente bi gayabtu andaami an alfuduli al yowma lillahi wa li rasul loolu wax na ci lu bëree bëri tagg na yonente bi tagg yoo xam ne nit mosu ko ko tagg gën jaa néew gën jaa néew ñaari téeméeri bayit moom sëñ bi wax na ko ci ñaari téeméeri junni boobu ci ay bayit sëñ bi wax na ko ci yonente bi gën jaa néew am nañu wax million waaye gën jaa néew moom ñaari téeméeri junni bayit moom sëñ bi def na ko ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam ñaari téeméeri junni te loolu amul ci kaw suuf ku ko def ci bit wax waxuma nag def ko ci yonte bi alayhi salatu wasalaam ñi ci tag di leen wax ay fanweeri junni ba lañ leen tuddal waaye ànd ak loolu lépp moom gisut ne wax wax na ci dara ci yonte bi alayhi salatu wasalaam lakin ajastu amma damas wa ma madahtu madaxtuka nubadaay xaara midaadi xaara fuaadi عن مهال البدلاء فكيف أحوي مدعا لمحي والمدح معيد العقلاء sama xalima yi dam nañ sama daal yi jeex na wax naa ba jeexal te taxagut nag ma wax dara fi ne ma waxagun dara ci yonente bi alei salatu salaam lottu naa ci tagg ko lakin wanan dëhra an amdaaxihi suara wan yal asaabii an masil li jirni sama ni ko noonu la saxaloon di ko julli ci moom alayhi salatu wasalaam loolu it mën nañ ne mooy tariqaam moom mooy wirdam bi gën a kawe mooy julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Basiru dafa wax ne dajee sosu moom maanaam da daje dafa feeñ rek sax saxal di julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam ci ndawam lañ maanaam ci ci tu tànk ba mu koy doon boobu lañ ko dal xam ci moom ba niñ ko noppee gis yaa rasulan lahu udimu salaatan ma salaami wala tazaala bahija julli yi ni julli ci moom it julli pëstéef lay doon boobu lu mel ne salaat fi ne نور داري دي مثلا داي گيس لدن وانا صلي صلاه تملا السماء والارض يا من قاد لي نما مع سلام يرتقي للعرش ويملا الكرسي يا ذا الفرش ويدخل البشر في قلب النبي مانا جولي كو خامني مانا ناي اللهم سل على سيدنا محمد قبل اليوم واي جولي سون بروم ماغي نان جولي جولي كو خام داي اسمان ييب fees suuf sépp di di wéy nag di bët ba ca aras mu fees ko dem ba kursi yu mu fees yooyu yépp loolu lépp nga def ko muy mbëgg ci xal xolum yonente bi alei salatu wasalaam xam loolu ak julli la waaye julli pëstéew la ak yéene léeg-léeg nga gis mu ne salli salaatan laa tazaalu mudxila bisran yaa sayidi yaa buxyati yaa junnati عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعمة وكلما اشتقت إليه قال لك بلا مشقة فانقاد مثلا بير جولي غي غيس بغغي داي فين سي نيمي جولي سي يونتي عليه الصلاه والسلام لولو مان سي مان نانتي واخ بري بري loolu it la digle waxoon na taaliba yi ne na ngeen sax ci di julli ci yonte bi alei salaam wala tufaariqu salaatakum ala sayidina muhammadin babil ola fa hiya ajallu ma tamassakta bihi baada adayil fard faltantabihi ginnaaw boo jullee say farata amul lu ëpp solo nga def sa waxtu yépp ci julli ci yonte bi alei salatu wasalaam loolu la sëñ bi daa wax defal na nu xasida yoo xam ni fi ne nii wax dëgg yàlla mu di moom xawma mbooloo mu leen ëpp lu ñuy julli ci ndax bisi xasida yi ñuy def rek nga xam ne ay jaalibatul maraaxib loolu daal yooyu dañuy xëy suba di ko jàng ba waxtu wa del si loolu moom amul mbooloo muy def noonu ci kaw suuf ci li ma xam boog ñuy jullee noonu ci yonte te bis bu set mur yi def ay bisi xasida ak ngont yi ñuy defal cant ya te lépp dañu toog di di jàng te xasida yi salaatu ala nabi loolu nag tawféex ji nu am ci réew moom jàpp naa moo loolu rek moo ne ko may salaatu na nabi boobu moo moo nu may xéewal yu bari yu am ci réew mi yàlla na ko yàlla saxal daraja Sëriñ Tuubaa daana wax itam ne yonente bi liggéeyal naa ko waaye nag nangu na liggéey muhammadun qabida min nii xidami nangu na liggéey muqaddiman kulliyati lam andami moo tax rëccuuma lépp loo xam ne jox xaw naa laale yonente bi lool la ko sëñ bu fekkee wax bi jeex na nga wax lépp lu laale yonente bi noonu la ko bëggoon dana wax ne nuhibbuhu salla alayhi llahu xubban bihi nuhibbu noonu la bëgg noonu la ko laa koy sëñ bi wax na ba bëgg ndax day téerab Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kitaabu rasulillahi wirdi wa yaa kitaabal karimi anta xabibi كتاب ربي لي خليل وحبيب يحبني بحبه كل نبي كيف كما بغا سوك سوك بو وير نكو جاري لي تي غنا غاو موي غا جاري كو تي تيري بي بي القران بو ريفه رك سون بير دنا غاو داجي ماغي ان شاء الله تعالى دا راه ني موي سما دين سما دين موي تيري مصطفى صلى الله عليه وسلم ديني كتاب المصطفى لا غيره وينتحي إلى سواي الطير كتابك ديني وهو خلي ومؤنسي هداني به الهادي ونفسي به زكى waaw dañuy jox addi yéen bi salaa sallam ak bu baax jar na ko def si masam boobu de maa ngi wax dañ ko dégg jox addi yéen bi waaye ak addi yéen bi waaw si si masam taxaw

danaa wax dama caa mooy ni ku ñuy wommat te bët ya muuru na muy wom na muy moyee si kii koy wommat noonu laa ngoy ci alxuraan maasikan bil kitaabi maska dariir te dara mënu ko wutu ci man itam loolu wax loolu wax na ci lu bare bare moom nag lañ gis suñ tubaab lañ gis mu amoon bërëb bi ñuy wax daaray kaamil ci moom lañ ko njëkk a gisee mooy bërëb boo xam ne mbooloo dañ fay ne bi seet ñu dëkk ci jàng alxuraan suba ngoon bëccëg bi ñu koy xool guddi gi ñu koy tari loolu ci moom lañ ko mës a gis moom it lañ gis muy jëmm joo xam ni nit du ko indi kaamil te te te te weccu ko maanaam kaamil boo ko indi di ko jaay di ko wecc ko mu jënd ko sëñ Moussa Lamine wax na ne bis jënd na juróom-ñetti téeméeri kaamil te booba kaamil yi moon yi ñu moon amagul booba li amoon mooy kaamil yi ñuy bind ak loxo am na naar boo xam ni dafa wax ne man dootuma wutati métier ginnaaw mën na maa bind te sëñ Tuubaa kaamil boo ko indil mu mu jënd ko damay bind kaamil rek dem jaay ko bu la ma jox bu jeexee mu bindaat doon jaay ko ma ma maadaama xawsul wara xaqan yu baj yu bajjiluhu sidqan wa yabsuru fihi xaaliyal maali noonu la ko waxee yaakaar naa kon noonu la defoon ci alxuraan bokk na ci li laal ci yoonte bi lu mel ne xadis yoonte bi noonu la ko bëggee woon gis nañ mu wax ne ahadith annabii yi xalili wa xabibi wa juttani bi sadaali yow xadis yonte bi yaay sama xarit di sama soppe ndax yonte bi moo moo moo wax xadis yooyu xadis yi wér nag laa wax danaa wax itam ne wax yonte bi du ma ko jënde dara kalaamuhu laa abtaxi bihi badal du ko jënde dara waaye lii wér nag moo tax boo gisee dara ñu ne lii mooy sunna te fekk sëñ bi daw ko def xam ne loola benn la sëñ bay def daa gën a wér ci sunna bay nga jàpp loolu bu fekkee li nga def wér na sax wér na lay wax jàppal ne lee da ko gën a wér mu nekk ci sëñ moom du juyóog sunna moom mësu ko mësu ta juyóog moom danaa wax ne xadis yu mooy sama wéttal lu ci waaye xam it ko gën a xam ndax biir xadis yi bari na ci wax ne ko mokkal moom danaa wax ne xadisu xayril xalqi li aniisu baxda kitaabi man huwa aniisu ginnaaw téerab yàlla bi xadis yu te mooy sama wéttal dana wax tam ne mooy sama saafara ni mu ko wax ci alxuraan wax wax na ko ci xadi duaa yastajib bi man shafaani xadiisuhu wa bidaai kafaani adi xadiisu xayril xalqi lii uloobu ñooy samay xam-xam itam làkk wi yonent noonu la ko bëggee Sëñ Tuubaa lañ gis muy koo xam ni mësul a bind wala mu dénkaane si benn làkk bu may luxal arabiya dëkk yi muy am yépp turu araab la koy jox ci lay bind fas yim naa am ak yooyu yëpp ci bari turu wa turu arab lañ koy jox loolu dañ ko miin noonu rek ndax dañ ko dañ fee dëkk te xam ko ni waaye lu tumuraanke ci kaw suuf moom mooy koo xam ni te wax na ne bëgg gi ma bëgg làkk bi bëgg yónente bee ko sabab du làkk bi rek laa bëgg yónente ba bëgg moo tax ma bëgg lim naa wax xubbi lahu qaada lisaanul arabi liya wali kuréel dara wax sax ni moom su xelam dajee wax beneen làkk bu may luxal arabiya loolu maa ngi koy jéggalu yàlla fa su ma yéenee ci kaw suuf wax beneen làkk bu may luxal arabiya bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam daan wax tub tubtu min al mayli ila xayri lisaan al arabi wa dafartu bil xisaan dara wax ni sax làkku arab yi mi ngi mel ne aljana ci man bu ma koy wax day mel ne aljana ci man ndax mooy baat ya Moustapha daa wax sallallahu alayhi wa sallam al arabiyu lii gadat al arabiyatu lii lii junna al arabiyatu gadat lii junna an il ila wa jannatan lil janna dala wax sax ni man da yàlla daa def dafa xaraamal ci man ma jàng ci wenn làkk bu may dugal arabi loolu wax na ci lu bëree bëri wax na ne sama làmmiñ boo mënta wax beneen làkk bu ma ko jéemoon du du dem sama làmmiñ ci moom moo tëj ci kanam weneen làkk wu mel lugal arabia lisaani yaxtama anil lugaat la siyama alsinatil bugaat benn baat lañ gis wax ko ci ci lu ci làkku France français muy jërëjëf merci beaucoup merci mooy sant na sutura boobu da doon sant yàlla sant na yàlla ci làkk yi mu xam yëpp rabba sama wal ardi rabba al arsi laka saraftu jërëjëf wa merci loolu gis nañu wax ko merci sax am na xasida bu mu ko tënkee waaye loolu rek dañ ci gis mu mu wax ko ci te mel na déggoon na ko itam déggoon na euh, làkk wi luñ wax mel na dina ko xam nekk noonu itam mbokk yonent bi ak saxaaba noonu leen fonke woon ku masaa ñëw ci moom ñu ne ko kii sëtu yonent bi la shérif la dana la tara teraanga joo xam ne ñu rëy lay doon ba tax na nit ñu bari daana ñëw fi moom ay naar yoo xam ne dañ ko wax ne sëriñ lañ te duñ ay ngir bëgg rek mu jox leen moom nag daana leen xàmmee waaye fu ñëw rek loo wax dala jay fekk waaye nag ku ñëw di sërif bu wér dana la gën ba ñëpp xam ne kii moom ak ak sarafam wér na la bëggee woon itam saxaaba yëpp tagg na leen jox na leen addiye yoo xam ni ci moom lañ ko mës a gisee te yëgul man dana ñaan mooy bi mu nekkee ci géej gi suñu yonent bi daa wax ne maa min abdin illa wa lahu baytaani baytun fil janna wa baytun fil naar nit ku ne am na ñaari kër kër gu nekk àjjana ak kër gu nekk sawara soo dee jëf-jëf lu baax yaa ngi tabax gën a tabax sa këru àjjana di gën a màbb sa këru sawara kon jëmmu doomu aadama bu ne am na ñaari kër benn bu nekk àjjana wala sawara boo demee àjjana sa këru sawara des fa boo demee sawara sa këru àjjana des fa sëñ bi nag loolee moo tax mu ñaan suñu borom mu may ko kër yi nasaran yi ko doon sonal noonu yàlla yi ko tubaab yi ko doon sonal seen kër yi ñu waroon am ci àjjana la ñaan suñu borom ya, nga may ma suq lii manazila ilaaya fil jinaan bila xisaabin wala tayyibil jinaan suñu borom ne ko may naa la kër yooyu léegi ñoom kër yi ñu waroon am ci àjjana léegi yaa ko moom yow si amu kam waaye sëñ bi ne jox naa ko addiyee saxaaba yi aataytuhu saxbahu aataytu saxbahu manazila al ila fi ljannati allati ixtamat amal ala lijaad rabbi bil manazil lada taqarrubi mutayyiban lil kharaba inni ja'altuha hadaya lisihab radiya anhum man hamani an sahab adi jot adi jure la te keur yoy e, boy moy ngeen ci keur lolou moy adi ci gëna reey ci ci ligé ñun ñi ku amon ben keur aljana do ko jox kenn xalaat do faaw da ngoy xaar ngeen dekké ko ndax boba moy moy aljana fa la ñepp di dak moy jëm kay ben keur rek te foofu kër bu ci ne du bokk ak morom bi fu ne xéwali boobu la moom mu am xéwal yi nga xam ne nag tey ñoom ñëpp bu ñu defoon lu baax fañ war a dëkkee mu jël ko jox saxaaba yi bu dee lu mel ne gàmmu noonu la ko fonke woon da ko daa gàttalu di ko gunge wax na ci lu bari loo xam ne dañuy bañ lu gën a gudd bu dee lu mel ne xeetu yonent bi noonu leen fonke ñaanal na leen ba tey dawul sette moom ak maanaam ñi ko topp ak ñi ko toppul ñëpp da fonkoon nekk doon itam Touba gi nga xam ne fi la njëkk a gisee yonente bi alayhi salaatu salaam noonu la ko fonke woon ci biir ngir yi ci biir lislaam it borom ngir yi koo ci gis sëñ bi ànd ak moom bul sikk ne kookee am na ab cër ci yonente bi parce que bu dee ci wàllu euh, pas-pas abul xasan ashari bi nga xam ne moom la ahlu sunna yëpp àndal abul xasan ashari euh, ibnu asakir dafa wax ne dafa gént gis yonente bi alayhi salaatu salaam yonente bi ne ko li ñu ñett lay jële ci man ci ay tawxiid ci wàllu tawxiid na nga ko jël défendre ko te aar ko te te bind ko saxal ko loolu moo tax mu mu xëy suba di ca dox ba ngir mi ñu di ko askan moom abul xasan asari wax ko ne su su yonte bi wax ko ci ne yàlla dana defal madad ci ci ci loolu gis nga kookee moom la sëñ bi ànd bu dee ci fiq imaamu malik nga xam ne moom danaa wax ne du tëdd bi alayhi salaatu wasalaam imaam Malik da doon bëgg yonente bi biir Màkka biir Madina mosu faa sol ay daal ngir dara wax ne suuf soo xam ne ay yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ne ci suuf du ma fa sol ay daal mosu faa war daaba itam bu waree mbaamam wala dara ba ca buntu dëkk ba day wàcc dox mosu faa dem li ñu tuddee wanag yi dem wax nañu daw ko fa dem day dem ba ca biti dëkk ba mu génn ku mel noonu nag ci fonk yonente bi ami tegg noonu sëñ bi du ko bàyyi mukk di jël keneen te moo nekkoon mooy imaamu ahli euh, al madina moo nekkoon imaam moo jàkk yonent bi moo fa daa jullee itam yeneen ay may fiq yëpp kenn amu ci loolu tawfeex jooju Maalik la ko suñu moo ci jàkkay guddi ne wax ne maa bittu laylatan illaa wa raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon yonent bi bëgg ko bu ñu ma saa tudd yonent bi ci wetam rek day ñëpp dañ ko ci xar kanam xar kanam bi moom imaamu Maalik loolu moo ko booleeg sëñ bi boo seetloo sëñ bi nag amul teqale ci ngir yi wala parparloo mu dara wax ne ñëpp la fonk ay mati fi fiqi malikul ali wa shafii wal hanafi wal xambali tasawuf fit noonu moom ci yonente bi alei salatu salaam ca la ko jëlee ba ci njàng yi ñu jàng yi riwayat yi ñu jàng alquran qiraa bi itam gis nañ naafi mi nekkoon madina jiite fa juróom benn fukki at daa jàngale te moom mas nay jàngale ñu ne ko xanaa da ngaa xëy gët mu ne leen damaa gis yonente bi alei salatu salaam ci gént mu tifli ci sama gémmiñ loolu moo tax waxtu wu ne sama gémmiñ bi sama gémmiñ bi xeeñ lu neex ba mel dama xeeñoo parfum te xeeñoo ko naafia moom yi moom la sëñ bi doon jàng ci riwaaya mooy riwaayatu warsa ak xaadal muy dem rek njabootam gépp itam Seydina Muhammad la lay tudde daanaka te njëlbeen ku mu am rek Muhammad lay tudd Muhammad Yadal Muhammad al Mustafa Muhammad al Fadil Muhammad al Amin Muhammad al Jamil Muhammad al Bashir Muhammad al Muxtaar mu mag ak mu ndaw ahmad am na ci mu mag ak mu ndaw an muhammadul murtada mi ci mujj si muhammad murtada mi nga xam ne moom loxoom dañ cee tur bañ cee bindoon muhammad ndax moom moo ci mujj loxoom bi mu feeñee dañ cee bind muhammad di leer nañ yoo xam ne bari nañu ko gis njaboot bu jigéen gi daanaka boo leen toppee koo ci topp mu dem ci yoon bi alayhi salaam am na ñetti fatima ak ñetti aïsa ak ñaari xadija ak ñaari maymuna ak ñaari amina ak benn umu kalsum kon sëriñ bi moom léppam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yëmu ci loolu li mu koy sopp lool ak li mu koy bëgg bëgg ak li mu koy liggéey lépp dana ko da ko daa boole di ko sant boole ci lelek di ko wax ne ko xadimuka raadin anka faqbal shukura man de gërëm naa la bu wér te xam nga moom mooy liggéey teewul nag mooy sant yajiuka minni kulla waqtin wa saaxatin ridaun wa shukrun raafaqa alxubba fi lxay mu nga danaa wax sax ne kon loolu yi mënoon na ci wax lu bare bare daana woon nit ñëpp ngir ñu bëgg rasulullah sallallahu alayhi daa wax itam njariñ yi ne ci bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa wax na ne ku bëgg yonent bi dégg nga faw mu jóg kon jéem leen a bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg yonent bi lum yaakaar du tas kon na ngeen bëgg yonent bi alayhi wa sallam ku bëgg yonente bi ci nofraay lay ne ak ci xéewal yooyu yëpp wax na ko ku bëgg yonente bi faw mu dem àjjana loolu wax na ko ku de bëgg yonente bi faw ay darajaam yëkkati ko faw mu nekk ci mbégte ku ko bañ nag ndax ku bëgg yonente bi sax lu mu wax xam ne ne dëgg la loolu wax na ko wa man ahabbahu fala yufallalu wax na itam ne ku ko ku bañ yonente bi nag moom loolu wax na ci lu baree bare nee na kooku moom xel jàppal ne neexu te wéru te dafa am ak dese te ku sàggan la te bu faatoo ay jafe-jafe koy rey te ci coono rek lay ne te du amuk texe loolu lépp melal na ko ci ay bayit wax ñi nga xam te wax na du du dugg àjjana mukk ku bañ yoona tëgg doo loolu nag ma ne ne ba mu nekkee ci géej gi ak ay sasin na ma ko waxee ba ñëwee ba dak sasin muy 1324 ci gàddaay yooyu tamit 1907 ca Mauritanie fa la ko yàlla maye nag loo xam dañ ko gis muy sant bu baax di wane ne man la ma bëggoon ca ay sasin léegi am naa ko waxoon nañ ne ay sasin bi mu njëkkee gis yonente bi da ko wax ne dama laa bëgg a jege ba gën a jege gaa ñi la wër loolee nag gis nañ ba mu nekkee murtali ca dëkk sasin foofee la wax ne am naa la doon sàkku lépp am naa bi yëpp itam muñ nga ma ko doon muñ yàlla fay na ma tey coono muñ boobee xaadaliyal baaqi sawaaba saabirin من رأس دكسة وأجر الشاكرين شوقي فيه الربح والصلاح ولحياة النور والفلاح ربح ذو التجارة قد تجرى بحب شافع أدام الفجر تلولو لكو يعلم مي لأن ركلا موي دفا دف وقت فون موي جلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفي لكو وخي وخني سمعت دعوتي ولي استجبت ولي ولتقود ماليا تجبتا قد قلت لي ما ومت عام أيسس كما أحب ربي عام دكسس لما ندون يانت يعني أيسس نما كوب جنون نما كوجا حكيم أيت دكسس ما رسول الله نصب عيني في من اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتونه ما كنت تقبل سام بن بدو تقرأ كم فما ندي جنون عليه الصلاة والسلام ما دام جيجي لنكم سواء على خارم الله كيو يرد بالسلام Cheikh xam euh, gul du bëddi bind na lettre yonente bi jox Sëñ Tuubaa mu joxal ko yonente bi alayhi salaam <laughs> da ngay a laaj dara itam daa daa gën di màgg mujj na àgg ci diggante yonente bi àgg ci jege boo xam ni la ko sëñ bi tuddee ittisaal bu ko teg wasloo ak misaal yi ñuy wax alal euh, bi bay nii wa bay nahu tasal bilan fisaalin yaa najiya man wasa moo tax na mujj na lu ñuy lu muy nettali lu aju ci yonente bi nam feeñe woon ci yonente ba nam fa demewoon loolu lay demewaat ci moom ci misaal Cheikh Sidi Ahmad Lissu wax na ne ci euh, njaareem toog na ñuy jàng xasid ak gës bu ba àgg ci wan fajaral maa un namir min yeddi di takarrumi mu ndox mi balle woon ci loxo yonente bi waaye net bañ bañ ci accès kii jàng bi mu agsee ci wan fajaral maa un namir min yëdd di takkur bi ndox mi dañu gis muy balle ci loxo yi sëriñ bi radiallahu anhu wa arda te loolu du du woowa yoon am na weneen yoon cheikh ba cheikh ba euh, moom ba euh, wullu abdullah cheikh ba wax na ne cheikh abdourahman wullu saalik moo ko nettali ne dafa mas ànd ak ay gaa yi dem ca sëriñ ba bañ demee ñu di ko laaj ne ko yónte bi niñ doon wax ne ndox mi da doon balle ci loxoom xam nañ ko waaye naka la ko doon defee neen mu yëkkati loxoom di leen wax ne nii la doon balle ñu gis ndox mi tàmbalee ndox mi balle ci loxoom bi alayhi ridwanullahi tabaaraka wa taala parce que dafa mujjoon am jaxasoo si daa xam ne su ma la ko tuddee siddatu imtisaaji ruuxihi bi ruuxi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy genn ala alladi laka bihi wasaltu wa ma taraddatu wa man fasaltu ak walaltu fi jaybi rasulillahi mooy dafa mujj tàbbi ci biir rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam foofe nag fa la ay wax yem maanaam ginnaaw ba loo waxaat rek ñu jàppale wax nga wax nga yàlla yàlla dafa tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh